ba ñu ci jógee waxaat naa ci moom ci boppam wax na ci. Mhm. ci laa ne woon pour man loolu chapitre boobu jeex na. parce que mhm. man dama bokk ci ñi neen ñi naan toujours nañuy dem ci li gën a am solo.

nit nit la moo tax aussi il ñu comprendre loolu man mii fii ma toog di wax ak yéen. Mhm. mën naa jékki-jékki am fi malaise daanu ñu yóbbu ma. Mhm. du tee suba ma xëy dem doxi sama soxla dañuy xool rek lan la mën na am aw ma sax jàngoro bu garaaw. Mhm. alors li fa am moment bu chargé la bu diis gis nga bi bi imam bi doon jàng alxuraan. ba benn moment moom mi doon jàng di jooy. ñun ña fa toogoon ñëpp suñu rangoñ turoon na te pourtant du ñu ay xale te lu ñu jooyloo yombul. ku ne nga mouchoir parce que dañu ko sentir. du sentir avec nous tous. famille victime ya nga won fofu bi mu di wax dafa minutes ci il faisait plus de 40 et quelques degrés. Mm-hmm. Mm-hmm. il faisait plus de 40 et quelques degrés. effectivement mm-hmm. fa ñu defoon di wax amul protection micro ak pupitre bi lañ fa tek fi ñu tok ci na na ker discours en wolof. def discours en français def discours en Jola, taxaw lu ëpp 45 minutes Bimu mu paree man ak ay dëmbooj ñu war a wax ci pacte bi ñu ni ko nañu ko beni ñun ñett benn yoon pour mbir mi gaaw mhm. ñu taxawati fa ta ba mu defoon plus suñu bos plus charge bi plus nit la plus parce que la veille man ak moom wax nañu ba peut être ay minuit et quelque ci mhm. guddi mhm. ñu war a 5 heures dem aéroport ma ko man maa ngi tëddi mu amati liggéey ni ma man dama am lu ma war a yeggali xam nga kooku nelawul mais alors boo ñëwee foofu contexte bi charge émotionnelle bi. presque une heure de temps discours am ak suñu bos nga taxaw ko ci naaju quarante et quelques degrés. yooyu yëpp mën na joué ci. dañuy nangu dañuy nga am mhm. nga am li nga xamni ni médecins yi wax nañ ko. ba paré mhm. médecins yi génn nañu. Mhm. wax ni lolu luy dal nit la. lélé nga nek ci yene charge émotionnelle. ak public bu bari. ak ay tension mo am lu japp du am lu am jéxital ci sa santé bu bu bu bu baax. wayé mën na laa dale noonu nga am ku melni ni perte connaissance. li am solo moy foofu laa bëgg yem ci mbir mi. li solo mooy. yàlla suturaal nañu. ba bi mu koy def mm, Aïda Mbodj a ngi taxaw maa ngi taxaw. yàlla def Aïda Mbodj teel ko gis wax ma ko. mënoon na ma ko wax duma comprendre lu ma wax. lu mu mënoon naa xool feneen ba du ma gis dara. yàlla suturaal nañu ba gis naa ko. ñëw yaa ko téye sax. keneen ñëw. Mm-hmm. ñu jàpp ko. Mm-hmm. mu toog noppalu dallu ba mu jeexee deful sax dix minute taxawaat na ni sax damay ñëwaat pour wax ak public bi ñu ne ko noo jeex na sax nañu ñibbi

et et gis nañ ko ba taay c'est un sportif. Mhm. bien sûr. day day entraînement du training comme ni mhm. ko les jeunes di waxee. Mhm. donc au-delà de ça dañ gis même bien avant événement que ne da doon jàmbat ay mettitu yaram. waaw nit la ba waral mu taxone muy fréquenter cet endroit bi nga xam ne mooy. voilà moo indi coow li yëpp est-ce que yéen amul amuñu lu ñuy nëbb tamit. ci santé Ousmane Sonko est-ce que réellement le gars va bien. Moussa il faut ñu waxante deug il va bien en en dehors de limu waxone wax na ni am na ay métti doo. Hmm. damay maase wu damay dama si def ay frotte ak yooyu wax na ko man damay tànk day ruux yow mii boo demee sëñ Cheikh am na am na luy metti Moussa. boo ko seetee man maa ngi sant yàlla am na lu maa ngi sant yàlla ku ne rek am na am yëngu dégg nga. Eh, eh, boo xooloon fii tamit ci espace politique bi ku ci ne am na lu yëngu. loolu hmm. yàlla moo koy def nit. Hmm. après da nga naan est-ce que c'est suffisamment grave ba du mën a assumer charge yi muy assumer bu fa yeggoon rek. sénégal yi dañu am droit wu vraiment loolu bu ñu demoon ba diw président la wala diw bëgg na nekk président mhm. waaye nangam ak i nangam mhm. bu boobaa mais tant que yegguñu foofu mhm. nit ki wax na lii mooy metti médecins yi nee nañu du lu extraordinaire lu ko teree liggéey mu ngi def li mu war